ahoudubillah min sheytaan irajim bisimillahi rahmani irahim wasalatu wasalaam ala nabil mustapha wa radiallahu taala an cheikh alqadim xina qaal wajal kalaami rachidan murshida wa fikrati nawri wa qalbi arshida asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk ñu ngi leen nuyu kenn ku ci nekk ak sa tur ak sant di leen ziar si fan yu tedd yi nga xam ne bi moom la ñuy waajal màggal ak Tuuba jiital ziar bi nag Serigne si euh, Mountakha Mbacké suñ borom guddal fanam woyofal yan bi comme ni ngeen ko xamee day retoral du rayaxin at mu jot day faral di organiser ay thèmes yoo xam ne bi dañ koy waajale màggal gi tey nag ren moom ñëpp wala bokk topp média dina xam ne ñi nga tànnoon euh, al ilmu naafi asaasu saada mooy thème bi nga xam mooy thème général bi euh, muy xam-xam ak importance bi mu am ci dund doomu aadama ngir mu am texe bu ne texe nag maanaam mooy texe dunya ak texe àllaaxira euh, thème boobu nag noon nga ko déggee dañ ko séddale ay xaaj nga xam ne buñ ci doon waxtaan fii ak ay ati at du jeex waaye kenn ku ci nekk rek dafa am luñ ci cof euh, thème bi ñu leen indil nag nga xam ne ñu ngi ko war a seq ak euh, sëñ Xali Mbàkke Xabsa muy euh, kenn la ci membre Rawdu Rayaahiin di yëngu ci ci dëkk bi mooy dawrul ilm fii binaa al muridi saadiq mooy lan mooy xam-xam rôle bi nga xam ne bii am na ko ci tabax murid saadiq mooy day mel ni bu nee murid saadix euh, wërta mën a dem te am euh, te àndaalit ak xam-xam te loolu boo ko xoolee day mel ni cheikhul xadim radiyallahu anhu bi mu sos euh, yoon wi da ko sos ci ñetti anim mooy li ñuy wax al ilmu naafi al amal al saalih ak al adabul mardi mooy xam-xam ak jëfe mooy bu ne jëf nag mooy nga jëfe li nga xam ak jëfe lépp loo xam ne bi nit ki da koy liggéey ngir mu man koo indil texek dunya ak alaaxira ba ko ñetteel mooy al adabul mardi mooy ay teggin nga xam ne kon ñett yooyu yëpp benn munta dem ànd bàyyi moroomam ah, kon mm, xam-xam noonu moo amee solo ah, te sëñ bi bàyyeen ci yitte ju toll noonu war na jamono ji jot ñu koy gëstu di ko yeesal di ci waxtaan di ci waxtaan rawatina nag jamono ji nga xam ne bi ah, sëñ Muntaxa suñ borom gudde fan woyofal yan bi li nga xam ne bi naal na ko ci eh, liggéeyal Cheikhul Khadim ñëpp xam na ne xam-xam ci bokk na ci yi ci jiitu mooy déclaration bi mu def nii rek ci nga xam ne bi moom la premier safar bi loolu rek tuddaan na ko ci nga xam ne kon yitteem yëpp mi ngi bëgg xam-xam gën a tasaaroo ci eh, ci dëkk bi ak ci réew mi ak mooy mooy lépp loo xam-xam xam ilmu naafe bu jëriñ Euh, kon ci noonu ci la ñuy jox suñu xalil mu nuyoo su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi nga xam ne bi mooy dawrul ilm fii binaa murid sadiq bisimilah euh, Cheikh Xalil. jërëjëf bisimilah rahmaani rahiim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina muhammadin ilmakin ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi cheikh cheikh Muntaxa Mbakke alxalifatul am li taifa al muridiya di nuyu sëriñ Ahmed Badawi mi nga xam ne moo nekk ci bopp daayira Rawdu Rayaahiin ak mboolem membre yi nga xam ne ñooy ne ci biir daayira bi di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan di leen dokkeel ci bis bu tedd bi nga xam ne moom lañ dëgmal mooy bisu màggalu Tuuba. jërëjëf euh, sëñ Xalil bu fekkee ne dañoo bëgg a dugg ci waxtaan wi. Hmm. dañ doon laaj maanaam xam-xam ban importance maanaam njariñu xam-xam nan lañ koy mën a xame njariñu xam-xam waaw ah, jërëjëf xam-xam dafa doon lu am solo ci wàlluk àdduna ak ci wàlluk diine àdduna ak diine nag suñ ko waxee waxin la rek waaye daanaka <coughs> ñoom ñaar dañu tàqali ko waaye alaa kulli moom lañ jiital ci lépp booy jàmm yàlla da nga war a xam sa diine sooy yëngu ci àdduna la ngay yëngoo nga xam lu mu doon moo tax sëñ bi fu mu koy tudde di ko lënkaleeg jëf al ilmu wal amalu al ilmu lay njëkk a tudd doog na al amal wala wal amalu xam-xam ak jëfe yaa ayuha shibyaanu in xiftum xajal fa qaddimoo taalluman ala amal mooy yeen waxambaane yi yeen jeunesse bi ngeen ragalee gàcce ñi ngeen jiital xam ci jëfe jàng leen bala ngeen jëfe moo tax alquran iqra bismi rabbika moo ci ko wàcc saar yi ci tege ni muy te ni mu ni muy dikkee nga xam ne eh, jàngal la njëkk digal yonent bi doog koo digal jëfe muy yaayu al musamilu qumil layla doog ko digalaat bi mu jëfee bi mu jàngee ba xam ba jëfee mu mu li mu jëfee li mu li mu xam mu mu mu jottali ko yaayal mu dasir qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir nga xam ne kon ñett yooyu mooy noonu mu tegaloo ni la war a tegal dangay xam jëfe li nga xam doog jël li nga xam tasaare ko ci ñeneen yi jëriñoo loolu nag di lu am solo loo xam ne mm, ni ma ko waxee léegi wàlluk àdduna ak wàllum diine lu ci nekk xam-xam war a jiitu gis nañ fi kilifa goo xam ne dafa nome euh, nu tuddati ak nit ministre àlluwa ju soriwul mu indi fi caw lu rëy a rëy loolu lu muy tekki mooy kon bala ngaa jëf da xam doo ko jëf ginnaaw àdduna nag lu fi di takk ci ay tànk day jiital xam-xam ba noppi doo koo takk kon àdduna àll diine ji nga xam ne amul fu mu yem moom kon waxaale wuñu ko saxaaba yi nga xam ne dañoo nekkoon ci ron yonent bi ñoom ñëpp ay borom xam-xam la ñu woon ndax lii ñuy xam wax nii muy diine ji di ko jàngale ñoom ci ñoom la ci ci ci ñoom la bàyyi ko ñoo ko tasaare Seexul Xadiim mi nga xam ne moo ñëw ngir beesal diine moom itam lu jiitu muy wax li ko yàlla may ak ndigal lim am ci woote ab jàngalekat la woon waaw ñi nga xam ne ñoo ko wuy si di faw ju njëkk bi muy groupe bi nga xam ne ñoo njëkk a ànd ak moom ci daara Sëriñ Mamoor Anta lañ nekkoon di jàng ba woote bi ñëw ñu doog a ànd ak moom ci loolu mu doon woote kon dañoo jiital xam-xam doog eh, teg ci teg ci teg kon ñoom ñooñu ni ñuy wax naa ci xoqal bu kaaw ñoom lay tawriye ñoom lay wane seeni melokaan waaye melokaan yi bari na ci loolu lu mu tudd ay borom xam-xam lañu woon min al qawmi cheikhun aalimun mi wax seen i ngëneel mu lim ca minha tabaxuru fi ilmi shariati ma ilmi alxaqiqati min qabli riyaadaati dañuy jàng xam-xamu sharia ba xam ko doo ko sóobu ngirum tasawuf al ilmu siimatuhum والحلم ديدنهم دون الدعاوي وإنكار المقامات ñoom dañuy am xam-xam boole ci lewet wooye fi loolu kon mooy wane ne euh, tëgg am murit saadix maanaam euh, waajal ab murit saadix faw balaa mën nekk loolu da ci jiitu maanaam xam-xam boobu noonu moo tax mboolem ñi nekkoon ci gronam mu di leen ci soññ leen ci wane ne lu mënta ñàkk la suñ ci ay dénkaaneem ku muy dénk mu ne ko dum ala takraari wa taallumi muddata umrika sawaaban taanami del jàng ka nafar sa giirub dund nga xam ne kon jàng amul fu mu yem min al mahdi min al mahdi ila lahdi nga xam ne <coughs> li ñu wax ne jàng jàng jàng jàngi jàng du weesu jàngi mooy weesu ay jàng moom muddata umrika noonu la ko o la loolu ko tënk noonu moo tax kon loolu di wane ne euh, na ko maanaam importance lool ci nga xam ne euh, noonu lay euh, yaree murid bi ak di ko di ko di ko ko fóot ak di ko yéege jërëjëf sëñ Xalil comme li nga wax léegi nga xam ne dañuy wax jàng jàngi hmm. jàng du weesu waaye jàngi mooy weesu nga xam ne lu mel noonu rek sëñ Muntaxa am na lu mu ko junj tamit ci déclaration bi mu waxan ne hmm. ñi nga xam ne ne nekk nan mag na sax jàpp na ne ñenn waruñoo jàng te hmm. war a di boore di liggéey di hmm. jàng nga xam ne kon jàng moom max di mahdi ila lahdina euh, jërëjëf xam naa kon euh, laaj bi ci topp rek mooy euh, lu ñuy wax xam-xam ginnaaw dafa bari ay façon maanaam nit ki daana mën na jàpp ne géej la géej ku yaatu la kon war na noo xam yan mm, xam-xam lañ war a jiital ci hmm. yeneen loolu nga hmm. xam ne ñu sa bari eh, ñi nga am eh, xel yaar wala boog duñ mën a xam dëgg-dëgg yan lañ war a jiital ci xam-xam hmm. ak yi ci nga xam ne xam-xam dafa bari ay ay étape kon loolu tamit eh, sàkkoo nan tamit ku ni ko leeral insha allah waaw xam naa bala ñu ñëw ci loolu sax ñu wax rek ni ko joxee gëdd moom sëñ bi ndax di nga xamee ne maanaam tàmbali ne tërbiye gi xam nga dafa leen wax ne leen ku fi jàng indi jàngum kese man ngaa dem seeti feneen foo àggale bu nag léegi eh, jàng ak tërbiya nga toog léegi diggante boobu ñenn ñi dem ñenn ñi toog waaye teewul ñi toog dafa continuer ak ñoom njàng moomee maam Thierno eh, la féetale woon muy jàngale ak suñ Mbàkke so gis nga lettre boobu mu bind maam Thierno di ko ci wax waaw ah, xamul ci géej gi la wala ci jamono boobu la daal di ko ñaanal ak di ko wax ne ko an yubarika li muridi ibrahima fi taalimi kulli ma ataytuhu min atawalif allati katabtuha ba'da ruju'i min al bahr doona ma katabtuhu qablu muy ñaan yàlla barkeelal maam Cerno mbooleem lu mu ko jox ci ay téere rek mu jàngal ko muridi mu ngi ñaan yàlla barkeel yooyu yëpp an yanfaa ibrahima a wa kullu man taalama alayhi bi tawaalifi nafxan lam yusbaq ilayhi fi taalumi wa taalim te te képp ku jàng ci moom yàlla barkeel sam njàng barkeel goo xam ne euh, barkeel du ko du ko du ko du ko maanaam gu amul morom daal wax koy dina ko werde yi nga xam ne moom la ko jox itam képp ku ku ko jox yàlla defal ko ci barke te euh, ak sant du dara waaye diggante boobu bi nga xamee ne maanaam dem na ba moom itam liggéey yam koy liggéeyloo mu xat sëñ bi désigné na ku ñuy wax sëñ Baara Xari Fall sëñ Baara Fatim Mbodj sëñ Mër Lamine Gaye jëmooy ngir ñu nekk fii ci dëkk bi di ko jàngaleen diirub li mu nekk gànnaar euh, ba jóge fa ñëw jolof ñoom ñoo doon jàngale ñëwee njaaree mu indi leen Tuubaa ñuy jàngale ñuy jàngale kon loolu amul benn rupture boo xam ne am na ci diggante bi sëñ bi wootee ak ba ni muy wujjee boromam boo xam ne ñàkk nañ fee nekk di di bañ a jàng waaye ni nga ko waxee rek jàng moom li nga war a njëkk a xam mooy sa yàlla mi la sàkk xam ni nga koy jaamoo xam xam eh, li li li war ci moom ci ay melokaan ak yi nga xam ne ay manqué manqué lay doon boo ko jàppee ci moom te loolu soo ko jàppee mën naa dox sa digganteeg moom ci ay mm, yeneen boo ko xamee ba noppi nag nga ba boo xamee moom na mu mel ak la war ca moom nga xam nag la mu bëgg na ko santaane te mooy ni koy jaamoo loolu mooy fiq boo xamee yooyu ba noppi nga xam ni ngay sellale jaamu ga ba doo ci boole leneen lu bëggut ak na ko bëgge loolu mooy tasawuf kon yooyu mooy yi nga xam ne ak jumtukaay yi nga xam ne moo lay dimbali ci nga xam ko bu ko defee itam mm, euh, yeneen yi nga xam ne itam xam-xam yu am njariñ la te aju ci àdduna itam loo ci mën a xam nga xam ko wa kullu ilmin bi mana bi mana fi xan yëf yi moom ko waxee noonu te maa ngi koy leeral fee léegi am lépp loo xam ne e, dafa mënta ñàkk ci jaamu yàlla gi maanaam e, bu yàggee day daal nekk waajib ni loolu nekk waajib ci misaal bu fekkonte ne dañuy tabax jàkk ni ni nga xam ne ni la ko àdduna laaj léegi norme yeeg yëf yi hmm. faaw da nga am architecte da nga am nangam danga am maçon danga am yooyu bu fekkee bu amul jàkka du mën a taxaw kon waaw maa laa yatimul waajibu illaa bihi fa huwa waajib moo tax kon xam-xami àdduna itam bu ñu ko woyofal ni ñu xam ne ci la bokk waaw mooy buñ doon gàttal waaye ñu xam ne daal xam-xam moom lu mënta ñàkk la ci Euh, murid bi te mooy jiitu parce que bi wax hadayta bi xaqdi wa tasawufi wal fiqhi ayaali bi zikri ma bi wa bil mati xam nga sëñ bi ay mbindam lépp ñaari façon la <coughs> bi jëm ci wàllu xel ak bi jëm ci wàllu xol bi jëm ci wàllu xel mooy téere yi xam-xam yi donte sax ci xol la jëm waaye ci xel lay jaar mooy yi nga xam ne boo ko jàngee bu la misaalee nga yëngal sa bopp de xam li mu wax ak bi nga xam ne moom loolu ci xol lay jëm directement mooy salaatu ala nabi yi ak euh, tagg yonent bi yooyu nga xam ne moom jurul seetal laajul seetantal nga xam ne mm, ñaari façon yooyu euh, gis nga bi mu koy wax ci béyu bi xaqati wa euh, xam-xam bi la jiital doog indi yi ci des muy aju ci xol muy xasaay bi nga xam ne kon boobu la murid war a njëkk xam ba géeju ci doog dugg ci wàllu durusu geeg loolu daal te moom ci boppam bari na lu muy tudd ci xasida yi ay leer yoo xam ne da koy jagleel ñi nga xam ne ñoo jàng donte sax baatub taxalum boobu ñaan ñi dañu ko dégg neneen waaye bari na euh, waccal li waccal li waccikal karimi xalami lil a xayra sullami <coughs> defal sama xalima mooy li may jàng mu doon Euh, escalier boo xam ne day yóbbu kii kii jàng mu di ko yóbbu ci yàlla wa kullu ma yen li yentami min nasri na mun tasami facc xàlluhu yaasal karami nooran li si taalimi lépp lu ñu may askanale ci ci ci ay ci ay téere moo la moo xam wesar la loolu def ko mu doon leer goo xam ne ki jàng mu doon leer goo xam ne gu koy gaawalal dox bi la xam naa kon eh, ci loolu ci nañuy eh, sof benn beneen laaj boo xam ne bi eh, nga xam ne suñ bi dafa wax ne sifaatu saadix mudir bi ixtisaar arwaatu nadamta xaw nga xam ne sifaat yooyu nga xam ne bi tudd na ko sidq fi mahabat cheikh abad day mel ni benn bu ci nekk ci sifaat yi mu tudd daa laaj xam ndax bu fekkee ne nit ki bu ko xamul du du mën a jëf li nga xam ne bi moom la dëxañ ci abyaat yooyu nga xam ne dafa sidq fi mahabati cheikh abad dëggu maanaam bu fekkee ne xamoo nan nga koy nan ngay bëggee sëñ bi tamit am naa yaakaar ne euh, nan euh, day des boo ko xoolee tamit imtisaal amri. waaw dëgg loolu am solo la naa mooy doon laaj mujj bi sax xaj na ndax euh, xam-xam jumtukaay la boo xam ne dañ ciy jaare pour jub pour boo jubee ci ngay texe kon al fawzu mooy texe mooy raaya bi xam-xam wasila la moyen la bu lay yóbbu ci fawzu loolu lu lu mat a moo tax ñi ñuy wax mooy waa ahlu tasawuf yi di wax ne nihayatul faqih bidayatul faqir ki jàng ba jeexal xam fiq xam ahkaam xam lépp fa mu jeexale ba nekk mufti foofu fa la ki kii bi euh, ki suubu jëm ci yàlla foofu la tàmbalee ndax fa nga ba jàpp ne xam nga lépp rek yaa ngi doogoon nag jub pour pour pour jëm ci yàlla loola lu mat a bàyyi xel suñu xoolee euh, matlabu shifa yi suñ wax wajxal jamial ulama yi amilin wajxal jamial amilina muxlisin wajxal jamial muxlisina zahidin wajxal jamial zahidina nasihin wajxal jamial nasihina sadiqin wajxal jamial sadiqina gis nga faisin mu ne mboolem borom xam-xam yi na nga leen def ñuy jëfee la ñu xam ñii jëfe itam nanga leen def ñu sellal la ñuy jëf ñooy sellal it na leen def ñu dëddu àdduna ñu dëddu àdduna it na nga leen def ñu bañ a yem ci dëddu waaye la ñu xam nañ koy laabire di ko kii bañ a bañ a dugg ci seen ko sa bokkatu ko ñoo ñuy laabire it na leen def lañuy ñuy laabire na dëggu ci ñoom bu ko defee nag wàccal jame en saadixina faa isin doog ña gis nga faws ni mujje gis nga diggante faa isin ak ah, alxolama li fi nekk ci ay ay darajaat xam ne xam kese kese taxul nga mucc da jaar ci étape yi mu wax yëpp da xam jëfe li nga xam sellal ko dëddu àdduna euh, ba àgg ci fawsu boobu noonu moo tax kon yow yan fahum saadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhaaru zalika al-fawzu al-azim fawsu boobu moo tax ñuy jàng moo tax kon <coughs> sëriñ bi bi mu nekkee Mbàkke Kajoor ba way jur wàccu liggéey mu gis njàng njàngum kese li muy mën a gàllankoor ki jëm ci yàlla te moom loolu tax ko jug jëm ci yàlla ko tax a jug moo tax mu soppi mën hëj bi wax leen ne ku fi jàng indi woon na nga na dem ndax ku ne xam na ne njàngum ku ñu jàngal te yeruñu la jikko ji nga yor njëkk ni ñu dafa yor xolub doomi soxna xolub loolu waxin la ci koo xam ne dafa xam te xool bi setul waaw ndax xam-xam li muy baax baax fi ne dafa am maanaam bu àndul akub dafa am ay gàkk-gàkk ay gàkk-gàkk moo tax sëñ bi di wax naa wasaana nii min aafati l itraai wa darari taalimi wal iqraai wa darari taalifi wa taallumi wa kulli cheyin jaalibin li dulami gis nga yàlla ñoŋal na ma ci eh, li ñuy aw jaay maanaam bu ñu la jaayee ni nga yëgee sa bopp ak ngi kii ak kuy jàngalee ka jàng ak kii taalif yëpp li ñuy yëg seen yëg yi yëg seen bopp léeg-léeg ak gàkk yi ci nekk noonu euh, nga xam ne day mujj doon ak lëndëm guy dox sa diggante sa borom li zulami mm, loolu euh, bu fekkee kiy jàng dafa yem ci jàngu kese mën naa xam-xam bi mën naa dox diggam ak borom moo tax moom suñ bi ni ma waxee rek ni nihayatul yi euh, bidayatul faqir moo tax sëñ bi fi ne ki jàng ba jeexal <laughs> moom lay soxla moom lay jàpp ne fi ne mi ngi tàmbali mu ngi tàmbali moom lay tàmbali tër bi te jàmm jàng ba jeexal jàpp na fi ne nii àgg na ci àgguwaayu kawe te yaraguñ ko kooku la soxla fi moo tax mu mu ne uskuru liyal wa waskuru eh, xafti wa raqibi kulla faqihin mufti eh, mu ne tër bi ci man maanaam yaral yar yar jaarale ko ci man yaru ki nga xam ne jàng na ba nekk faqih nekk mufti ba àgg ci àgguwaaye kooku <laughs> ñëw ma tarbiya ma tarxiya ko waaw naqa fu aadi wa lisaani min dahar man wi raqi kulla mufliqin chanr yàlla setal na sama làmmiñ ci ay lépp lu bon yàlla moom nga xam ne ci man lay tarxiyaa ku jàng ba Euh, nekk mufliq maanaam am xam-xam ba mën a woy ndax euh, doon bokk ci woykat yi gën a mag jàppe boppam ki ki kii kooku bu ñëwee man ci man ci man lañ koy tërbiya ci man lañ koy tarxiya loolu kon di wane rek ne hmm, xam-xam wasiila waaye du waaye ndax ñoom ñooñu nga xam ne ñoom laa tudd léegi ay borom xam-xam lañ bi sëñ Mamor di wàcc liggéey àgg nañ ci niveau yu kawe ci xam-xam waaye dañoo teg lépp ci suuf ñoo topp sëñ bi di leen digal di leen tere ñu mel ni koo xam ne këru ñu ijji loolu lu mat a bàyyi xel la moo tax kon kii jàng ba àgg ci niveau bu kawe bi moom jàpp ne moom mm, moo kawe ñëpp wala muy xeeb ñeneen noonu ko sëñ bay jaxate di faral di waxe ku jàng-jàng ba xam mbooleem araf yi nu gis na sant yàlla te bu mu tax muy xasit ku xamul yàlla xamal ku fi xam yàlla amal ku fi am mu sàkk mu sàkk dab yi def yiw sàkk dab yi deful yàlla fi teg dab yi moo tax lépp ndab lu nu gis nan koy teral ngir boroomam nun te bun ko bonal ab lar nu muy dofe bay rëyloo ko xeebi kemam kuy xeebu nit xamagul kuy rëylu it rëyagul waaw ah, kërëy du kërëy du rëylu am xam-xam du xeebi kemam baa kon nga xam ne dafay saf waaju xam te xamul waaw macha allah ah, waxtaan xam naa waxtu wi ñu may dafay bëgg jeex ni ah, xam naa li nga xam ne bi moom lan di mooy eh, taalif yi nga xam ne bi sëñ bi taalif na ko ngir woyofal nit ñi ñu gën a mën a xam-xam ñu gën a xam eh, xam-xam yi nga xam ne bii da leen jariñ loolu tamit xam naa ci diir bu bu gën a gaaw rek ndaxte daanaka ñu ngi signalé ne daanaka waxtu wi li si des bëriwut. waaw xam nga loolu junj naa ko léegi ci <clears throat> biir kii bi loolu mu wax naa jox naa ko maam Thierno mu di ko jàngale muy fiq tasawuf euh, tawxiid ak yi yi ciy dimbale naax boobu mel noonu. Mm, sax nee na ko ci euh, yi nga xam ne moom moom la def lu jiitu euh, géej gi moom bu mu ko jàngalee yi nga xam ne moom la def ginaaw géej gi moom la wax ne moom moo di ko jàngale kon loolu daanaka luñ ci soxla rek mu mm, fekk na def na ko ba noppi mm, xaj na suñu farlu rek moo ci des waaye lu sa xel dem ci xam-xam bu amal nit njariñ fii ci àdduna ak ci àllaaxira euh, sëñ bi waajal na ko waaw waaw kon xanaa ñu euh, jégglu rek lu ci nekk ci ay rëq-rëq xam ne mata di doomu aadama la ñaan yàlla mm, def ñu àgg ci bis boobu ñu dëgmal te la ci sëñ bi digle ci ay lam ci dige ci aw yiwu lépp yàlla defal ñu dàq ko ca barakat Cheikh Khadim wa axiru daxwaana alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf kon mbokk yi am na solo lool xam naa waxtu yi moo xaw gàtt waaye li nga xam ne bi waajaloon na ko sax daanaka tuuti lañ ci cofal nii Euh, ñaan suñu borom ñu egg ci bis boobu nga xam ne bii maanaam mooy bis bi euh, bi gën a rëy ci ñun mooy bisab Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mooy 18 safar euh, ñu terale ko tamit nga xam ne maanaam bernde du yem ci maanaam li nga xam ne bi mooy joxe aw ñam rek waaye di ko bernde ci ci xam-xam ak ci côté ruux ndaxte loolu moom am naa yaakaar ne bokk na ci li nga xam ne bi mooy gën a dundal bés bi teg ci tamit li nga xam ne mooy bernde yi nga xam ne bi Euh, ñëpp xam nañ ko ñu surtout jóobeen ni euh, di euh, ñaanalaat suñ Muntaxa suñ borom guddal fan woyofal yoon bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa